daal di waxante ci seen biir ni kat gis ngeen ni seen baay di li ñu ko wax gëmu ko ndax di ko ne tilligee ko lekk nee na tilligu lewati nii mosuma ko gis ndax tilligu lekk nit te mbuuma xotti ko wut fenn loolu yi man jaaxam kon yéen xam ngeen ni seen baay li ngeen ko wax gëmu ko ñu waxante ko ci seen biir daal di nag bu ngeen bëggee seen baay li ngeen di wax mu gëm ko dëggal ko da ngeen di demaat ca bënn ka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 dem leen rëbbi ci liggéey ba jàpp ko andil ma ko ñu daal di jël seeni buum dem di rëbbi ba jàpp ak till dem ci àll ba rëbbu ba rëbb ak till andi ko takk ko ba mu dëgër ñu andi ko ni ko till gi moo ko lekk ndax gis nañ mu tax dara biñ ko taxawalee ci kanam yonent yàlla yaqub alayhi salaam yaqub ni leen dindi leen takk-takk yi ngeen takk till gi ñu dindi ko yeew gañ ko yeewam yaqub jaakaarloo till gi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 ju yàgg ak métit woo xam ne day su ma la ko jéggalu bu la mer merum yàlla naa la def nee tëll ga daal di tontu tontu lu leer lu ñëpp yi dégg ne ko laa déedéet giñ naa ci àqi bijaaw bii nga bijaaw de yow yonente yàlla bi ni lekkuma sa doom ndax yéen yonente seen yàpp ak seen deret dafa araam ci nun araam na ci nun ndëgmente yi ñuy lekk deret yonent loolu araam la ci nun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 yusuf moo set jëkkër ji daal di xool jigéen ji ni ko innahu min kaydikunna na nga xam ne lii day seeni pexe la yéen jigéen ñi te inna kaydakunna adim seeni pexe day lu màgg la daal di wëlbati ko jàkkaarloog yusuf ni ko li ma lay ñaan mooy bu ko ñaar dégg arid an haza wastaghfir li zambi ni yusuf na nga dëddu lii nag bu ko nettali kenn bu ko wax kenn daal di wax soxnaam ni ko na nga jéglu sa bakkaar bi ni ndax yaa tooñ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 noo koy wat fekk maa ngi yor kaas bi buur bi di naane ma nal ca resin jooje jox ko ko mu naan loolu yi mooy li alquran wax ni fa xaala ahaduhuma inniya araniya asiru xamra dama gis saa bopp di nal sàngara yaani inaban maanaam resin la ci jublu ka ca des muy ka defaral buur bi ñam wa muy kay defaral affaire mburu yeeg yooyu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 ngir mi sama baay yi jaaroon ci laa jaar muy ibrahim ak ishaqa ak yaqub te ñoom di dawuñ jaamu kudul yàlla maa kaana lana an nushrika billahi min shay'in xalaatuñoo bokkaale ak yàlla dara bi nga xamante ne waxtaan naa ñoom waat leen ba noppi ñu gis xelum yusuf mu rafet gisub xam-xamam bu rafet mu woo leen ci islaam woowaa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 te duñoo jàpp rek daal du dara daal amul prix wa maa nahnu bi taawil ahlam bi alimin te ñun sax nag xamuñ taawil yi pirim gént yi demee noonu